actualité people nationale ak internationale Nafisatou Dieye lañ ci yàndal voilà euh, Nabou actualité du people national ci loolu la ñuy ñëw tey euh, di ko tàmbaleeg waa régie bu ngeen pare ñu dem seeti euh, Mame Goor Diazaka alors Mame Diop Mame Goor Diazaka nag suite à sa sortie bi mu génnee euh, di menacer ne day porter plainte ki nga xamante ni moom moom moom restaurant bale muy gérer di Au Bled nekk fale ci Almadies moom Sakhir Kébé mi Mame Goor indexé directement dafa daal di génn ci média yi itam daal di xamle ni Mame Goor Diazaka amelu ko benn location parce que foofu nga xamante ni moom moo di au Blec mu ngi ko ko loué un million cinq cent par mois ils n'ont pas de problème de location waaye dafa bëgg Mame Goor Diazaka génn ca locaux yooyu na mu gënee gaaw ndax contrat am le 29 août lay jeex moom Sakhir Kébé bokk na ci li tax mu bëgg a génnee Mame Goor mooy manque de gestion bi Mame Goor manque de gestion ndax ba mu ne salaamaaleykum ca foofule la dàq bépp employé bu nga xamante ni yaa ngi fa nekkoon Sakhir Kébé jug pour ñaawlu loolu ndax employé ya mu njëkk a dàq ñoom ñoo ñëw ci moom xamal ko ni Mame Goor Diazaka na muy gérer entreprise boobu di Au blet dafa daal di dippoowul ah, ak ak yoon voilà moom Sakhir Kébé di xam le ni Mame Goor Diazaka mënu ko porter plante benn yoon ndax contrat la ñu signé woon contrat bi dina jeex le 29 août te bu jeexee Mame Goor Diazaka dina jugee foofu na mu gënee gaaw bu ñu jugee ci loolu ñëw ci Cheikh Alassane Sène alors nag moom fële nga xamante ni moom moo di prison suite à onze mois de détention moom Cheikh Alassane Sène dafa lancé benn site euh, tey ci suba la koy fas yéenee lancé site bu tudd euh, Dakar Midi Cheikh Alassane Sène di xam le ni site boobu site d'information générale la nar a doon c'est une manière pour lui mu apporter di nga xamante ni moom moo di euh, touche personnelle am ci situation bu désastreuse bi nga xamante ni jamono ji population sénégalaise bi ñu ngi koy dund ñu ñëw ci Youssou Ndour alors people point sn nag dafa def benn taxaw seetlu xamante ni Youssou Ndour am na ko ak Wally Ballago Seck moom people point sn jàpp ni Youssou Ndour jamono jii trône bi nga xamante ni moom la def ci boppam dafa nekk di vaciller ndax Youssou dafa daal di tiit acte yi nga xamante ni moom moo wane ni Youssou jamono ji dafa tiit euh, people point sn jàpp ni bokk na ci refus de parrainage bi nga xamante ni moom Youssou Ndour refusé na ko euh, Wally Seck daf ko ne woon li nga xamante ni moom moo di bés bi Youssou daal dee bañ ne du accepté li nga xamante ni moom moo di parrainage boobu people point sn jàpp aussi ne li nga xamante ni moom moo di coïncidence seen date yi bokk na ci li nga xamante ni jamono ji tiital na Youssou Ndour ndax dafa waroon tëgg le 5 avril fële ca King faat Palace soirée waa impôt et domaine ba mu yëgee ni Wally day anniversaire le 30 avril moom Youssou def ko daal di rapproché ba le 30 avril ñoom ñaan ñu booloo tëggandoo waaye itam bokk na ci message yi nga xamante ni jamono ji ñu toll moom la le roi du mbalax nekk di véhiculer ak ni mu nekkee di reconquérir li nga xamante ni moom moo di diaspora bi ndax moom people point sn jàpp na ni Youssou Ndour ça fait très longtemps génnatul woon en guise de ak nationale sax waaye jamono ji ñu ngi koy gis muy génn de jour à jour ci média yi di wax yu nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni Youssou Ndour dafa daal di tiit ki nga xamante ni moom moo di Wally Ballago Seck looloo waral jamono ji euh, muy tâtonné bu ñu jugee ci loolu ñëw ci documentaire bi nga xamante ni euh, benn réalisatrice bu tudd Rama Diaw def na ko ci groupe kër gi alors Rama Diaw nag dafa retracé li nga xamante ni moom moo di parcours groupe kër gi kilifa ak caat nag daal di cay antu ndax kilifa moom jàpp na ni documentaire boobu c'est une manière de répondre à leur à leurs détracteurs ndax ñoom gis nañ ni euh, mouvement hip hop sénégalais bi dañ leen di sonal lu ci bëree bëri alors bu ñu ñëwaatee ci seen jaar jaar loolu c'est une manière de montrer aux sénégalais que ñoom mën nañ looloo waral ñu yegg si au somam sax ba ñu daal di leen defal benn documentaire buy retracer seen parcours moom Thiat daal di jàpp ne documentaire boobu bokk na ci li nga xamante ni ça a une importance bu mag a mag ci li nga xamante ni moom moo di seen carrière Euh, ñu dellu ca Grand Théâtre Nabou je pense que euh, mardi maa ngi la doon wax ni euh, Papis Konaté dafa doon fêté ay vingt cinq ans dimanche mu nekk kon nag benn réussite bu totale d'après Dakar Buzz devant un public vraiment maigre mais n'empêche artistes yi nga xamante ni ñoom ñoo fa daje woon bari nañ lool ndax moom Papis Konaté réussir na réunir pratiquement crème mu musique mbalax bi yépp sur un même scène waaye dafa am ay incidents yu nga xamante am na fa moom moom moo di Pape Diouf dafa budde soire bi ndax deux heures de temps avant muy tëgg la ñëw ne Papis dafa bëgg a def euh, dafa bëgg a jouer live ak li nga xamante ni moom moo di or orchestre orchestre xam na voilà alors Papis Konaté nag euh, dans un premier temps d'accordul woon ndax moom dafa jàppoon ni dafa def un mois de répétition ak li nga xamante ni moom mooy orchestre am gisul woon benn yoon Pape Diouf dal di jouer ak orchestre maanaam ak ay musiciens am gannaaw nag euh, loolu la Pape Diouf daal di budee ne moom du tëgg benn yoon sans orchestre am après nag ci la ay nit daal de dem dox ci ay tànku jàmm woo Pape Diouf mu daal di ñëw jouer li nga bari jàpp ni Pape sax dafa amoon ay euh, contrainte wala dafa amoon ay altercation euh, ak ki Papis ba jamono ji ñu toll seeni relation dafa daal di tendu loolu lépp nag mu nga tukkee fële ca vingt cinq ans yi nga xamante ni moom Papis doon na ko amal fële ca Grand Théâtre bu ñu jugee ci loolu ñëw ci ki nga xamante ni moo di Abou Thioubalo Abou Thioubalo nag moom prononcé na ci mariage ak Oumy Gueye Oumy Gueye nekkoon Euh, Miss Jongoma moom Abou Thioubalo jàpp na ni ki nga xamante ni moo di Oumy Gueye ba koy xam booba Oumy Gueye nekkul dara ndax Oumy Gueye dafa am benn salon de coiffure Abou Thioubalo waroon ko tëggal benn tànnibeer loolu yàgg na après ci la déggee ñu ne Oumy Gueye dafa amoon jëkkër mu nekkoon euh, soxna ci mbay Jacques Diop waaye mariage ba yàggul dara moom abu ci bolo ba mu yégee ni Oumy Gueye tas na ca la delluwaat ca moom ñuy gisante en en amoureux mu gis ni jour ba mu njëkkee dem kër ñoom Oumy Gueye min wi ba mu jotee papaay Oumy Gueye ci boppam dafa daal di génn dàq ko kër gi ci noonu la jàppee ni lépp lu nga xamante ni doon nañ ko wax ci xale bu jigéen boobu du dëgg looloo waral mu dem ñaani ko ba mu doon euh, soxnaam ñu ñëw ci série bii di wiiri wiiri alors wiri wiri nag ki nga xamante ni moom moo di seen monteur di wuyoo ci turu Tafa Dioum moom dañoo sàcc ordinateur portable am bi nga xamante ni moom la doon monter série boobu looloo waral ñu bari jamono ji daal di am ay inquiétude ci continuité série boobu ndax jàpp nañ ni ordinateur ba nga xamante ni moom moo def sketch yooyu noonu yëpp la ñu daal dee sàcc looloo waral sax site internet yi lancé en appel à que ñu jàppale ki nga xamante ni taf mooy tafaajum pour mu retrouver ordinateur portable am ñu dellu si ci Papis Konaté alors Papis Konaté nag dafa amoon rendez ak ki nga xamante ni moom moo di Mbagnick Ndiaye ba muy waajal événement am ba fële ca Grand Théâtre moom Papis Konaté toujours ba mu demee bureau Mbagnick Ndiaye dafa toog calme comme d'habitude Mbagnick Ndiaye nekk ci ay dossier wam di def ak dindeek bind moom Papis Konaté ba mu toogee ba sonn euh, Mbagnick Ndiaye daal di pare la muy def ne ko yow la kan Papis Konaté ne ko ndax jotuñu laa briefé ni euh, man maay kan Mbagnick Ndiaye ne ko yow la kan sax ba ngay waxeek man nii ñu bari jàpp ni Mbagnick Ndiaye bu xamul ki nga xamante ni moom moo di Papis Konaté nekk le parmi les plus grands musiciens du Sénégal ça devient un peu bizarre d'autant plus que de la culture looloo waral sax site yi daal di koy reprendre titre ni Mbagnick Ndiaye humilié na boppam ba mu ne xamul ki nga xamante ni moom moo di Papis Konaté Papis Konaté nag vraiment ku ñuy ku ñuy présenté ci réew mi dëgg yàlla xam nga Mbagnick jaaxle naa ci moom euh, Youssou Ndour génnee album bu tudd Sénégal rek album bi génn ni ki démb sur le plan euh, inter sur le plan national depuis barki démb voilà alors album boobu nag sur iTunes moom moo nekk à la tête du classement mondial Youssou Ndour album bi nga xamante ni moom moo di Sénégal rek euh, diggante barki démb ak tey moom mooy number one sur iTunes maanaam album bi nga xamante ni moom la ñu gën a jënd sur le plan international ñu des ci Youssou ba tey ndax ki nga xamante ni euh, moom moo di Youssou Ndour euh, suite à la sortie de cet ba tey moom dafa génn xamle ni moom li nga xamante ni moo di musique nekkatu ci. élève nekkatu ci étudiant waaye professeur la ci nda Youssou di xamle ba tey ni moom dawatul pour topp benn gloire wala dawatul pour topp benn succès ndax musique bi nga xamante ni moom lay def di mbalax daf ko daal di may lépp lu nga xamante ni moom la buggoon ci àddunaam actuellement dafay woy rek pour bégal ñi nga xamante ni ñoo di ay fansam waaye di woy itam pour exister waaye jàpp na ni mbalax wala musique mënatu ko offrir lum ko offrirul woon dans le passé ñu ñëw ci sànneex alors sànneex nag dafa participer ci benn film bu nga xamante ni dafa daw France 24 barki ba film bu tudd Bois benn alors film boobu nag c'est une réalisation de benn réalisateur bu tudd Moussa Touré film bi nag sànneex bokk ci mu nekk benn honneur encore une fois ndax euh, justement ndax mu nekk benn honneur parce que film bi sa ça a été diffusé le 10 mai à 20h ci chaîne boobu ñuy woowee France de jour boobu même sax dafa coïncider woon ak li nga xamante ni moom moo di feetu traite euh, esclave yeeg et cetera justement film bi di ret maîtriser nga film bi nag. dama ko rek yeggalil rek. <laughs> bi dafa doon retracer li nga xamante ni moom moo di la traite négrière hmm. euh, site yëpp daal di koy reprendre ak fierté ni nga xamante ni noonu la suñu artiste comédien boobu la di participé ci film bi Nabou ñu jeexalee ko ak li nga xamante ni moom moo di clip bu Nix alors Nix nag maam Sidi boo ñu boo ñu mënee may clip bi tuuti ñu xool ko. voilà alors Nix nag dafa génnee benn clip bu tudd. Euh, jelly Nala. Yeah. Baby girl, jelly nada. Baby girl, jelly nada. Baby girl, jelly nada. Baby girl, jelly nada. Baby, can you turn up? Baby, can you turn up? Baby, can you turn up? Baby, can you turn up? Baby, can you turn up? Baby, can you turn up? Baby, can you turn up? nee nañ ma nix da nga bëgg a jigéen I don't care man they show me love nee na ma bàyyi ma góor yëpp a yem kaay ma wan la ne bokkuma ñoom baby let's hang out today fuck tomorrow kaay ma show la love baby that's the motto kaay ñu tàngal snapchat bi gaay waaru selfie day la mel bu sexy rek bu ñaawa I know you wanna voilà na bu ñoo ko seetaanandoo alors clip bi nag li nga xamante ni moom moo bokk na ci clip yi gën a def buzz actuellement sur les réseaux sociaux mu am ay téléchargement yu baree baree bari ndax li nga xamante ni moom moo particulier ci film bi mooy ça a été réalisé par le biais de Snapchat alors Nix nag dafa daal di jël euh, téléphone portable am xool xale jigéen yi nga xamante ni ñoom la nekkal ami sur Snapchat euh, par le biais des vidéos yi nga xamante ni moom la ñuy posté moom la colporté ba mu mat 4 euh, minutes mu def ko clip bi mu tuddee ko jëli naa la mu nekk nag lu nga xamante ni sur sur les clips wala yu ni mel ndax pour la plupart du temps nit yi bu ñuy clip dañuy dem fii xam nga dem jëli ji art bi management wala iris wala wanted booyu ba xarañ yooyu ne leen ñu clipal leen mais nix moom dafa daal di jël vidéo yi nga xamante ni nit ñee ko defaral seen bopp daal di koy monter def ko clip mu joxe nag li résultat bu nice boobu bokkuma ci du sama ami xam nga metti na ma torom nag c'est grave bëggoon naa bokk fii nga waroon jaari am diplôme snap nag waaw waaw mais bon en tout cas c'est c'est une très bonne initiative mm-hmm. pour euh, une manière de s'approcher de ces fan à la base waaye c'est une manière aussi de montrer que ni bëri na ay alternatives yu nit mën a def pour réaliser li nga xamante ni moom moo di vidéo clip wala yu ni mel Seynabou loolu moo nekkoon seen info people yi tukkee ci réseaux sociaux yi ma doon leen ko dégtal man soxna na fi satu Dieye di leen jox rendez-vous samedi incha allah un petit déj week-end ak euh, DJ Mahou di remercier